abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir saa su nekk yu wér te wóor aju ci réew mi ci bitim commencé samay kàddu di gërëm samay waajur ndaxte bu dul woon ñoom tey duma fi toog bay wax ginnaaw samay waajur nag dama am mag joo xamante ne daf ma yàgg jàppale ci lépp ba may nekk xale ba léegi koo xamante ne ci lépp lu muy sóobu mu ngi sama ginnaaw. di ma tette di ma gunge tërëxuma gaañuma di ma woon yoon ma leen di ñaan ngeen tàccul ma ko muy Pape Oumar Kébé bee toog àdduna boo nekkee ndaw rawatina ñun ñiy ndaw nekk ci buntu àdduna comme ni ko sama président Alioune Ndiaye waxee léegi ndaw moo yor kàttan waaye mag moo yor xam-xam dañuy jiital ndaw mag nekk ci ginnaawam moo tax boo xoolee ci doxal Sénégal ñu nekk fii nii yépp ci taabal bi maa fi gën a nekk ndaw waaye ki nekk sama càmmoñ te muy secretaire généralu parti bi moo ma mag fuuf war na ma magee lu mat ñeen euh, ñaar fukki at doxal Sénégal du lijaasa doxal Sénégal du waaso doxal Sénégal du xeet doxal Sénégal du askan doxal Sénégal du diine doxal Sénégal ñun ñépp la sénégalais yépp amul fii laa far amul fee laa far li nga xamante ne moo ñu boole te mooy suñu yitte mooy ñun ñëpp ñu ànd doxal Sénégal ba mu ci ñëwee nag mu ñëw ci militant wu doxal Sénégal yi rawatina yéen gan yi nekk ci salle bi awma seen fay sama mbokk yi nekk F24 yi nekk ci NAC maa ngi lay nuyu bu baax Abdou Faye nouvelle alliance citoyenne yi jeunes yi taxawal ñi nekk F24 président Alioune Ndiaye sëñ Cheikh Tidiane docteur euh, le grand Abdoulaye ah, ak kilifa gi et votre adjoint dama fàtte turam monsieur monsieur Cheikh Dieng sa sa sa adjoint bi dama fàtte touram voilà donc dal ak jàmm ak sama mbokk yi fi nekk samay xarit samay am di jàmm ak ñëpp. fii seen kër mi doxal Sénégal du ngeen fi nekk ñuy wax ay mbirum at ay mbirum der ay mbirum waaso wala xeet doxal Sénégal sénégalais bu nekk liy waree fam mooy mu doxal Sénégal waaye sama gis-gis ngir ñu doxal Sénégal ak gis-gisu président de la République dafa féewuloo du benn sama gis-gis ngir ñu doxal Sénégal ak gis-gisu yenn leaders yi dafa féewuloo du benn dafa am loo xamante ne moom mooy essence su àdduna te loolu doomu aadama bu ko xasee ba rate daanaka àddunam yëpp yàqu na muy yar ak teggin yar ak teggin moo lay tijjil buntu yëpp buntu am buntu ut buntu wërsëg buntu tabax buntu defar te doomu aadama bi nee nañ richesse bi gën a doy waar bi mu mën a am ci àdduna mooy mu xam nit saa soo xamee nit rek. am nga yokkute ni ko sëñ Fallou doon waxee ba tax na si tabax doomu aadama boobu ci la focaliser essentiellement sama programme ndaxte tey jii bu ñu demee ba gis ne que Sénégal nekk nañ réew boo xamante ne xale yi ñu yaakaaroon ñu ci ëpp ci ñoom découragé nañ ci société bi découragé nañ ci ni président yore réewam découragé nañ ci jikko yi nga xamante ne moom li ñu gis suñuy mag yor ko te xaarew ñu ko woon ci ñoom kon tey dafa jot ñu tabaxaat doomu aadama tabaxaat doomu aadama ci refonder la république restaurer noo valeur et nos vertus bañ a fàtte fi nga xamante ne foofu lañ jóge ndaxte olof Njaay nee na boo xamatul foo jëm dellul fa nga jóge te jamono ji buñ demee bay duut baaraam tuuma naan xale yi ñooy lakk xale yi ñooy yàq xale yi ñooy toj xale yi ñooy saaga kon dafa jot nag xale yi xoolaat seen bopp te ci xale yooyu di xoolaat seen bopp tey doxal Sénégal dafa nekk ci seen programme nekk ci seen biir xool ndaxte macha allah doxal Sénégal ki ko jiite xale la ni ñoom waaye xale bu teel a xam lan mooy responsabilité te ba muy teel a jàngale à 21 ans ba muy teel a liggéey lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum yi xarale informatique à cinq ans. ba ba muy teel a takk soxna donc sens responsabilité dañ ko teel a jël teel ko incarné ndax xam lan moo ñuy xaar duma bokk mukk ci ndaje boo xamante ne dañ fay saaga nit du ma bokk mukk ci ndaje boo xam ne dañ ciy tuutil doomu aadama duma bokk mukk ci ndaje boo xamante ne duñ fa diisoo lépp loo xamante ne luy yokk doomu aadama la wala luy tax doomu aadama mun a avancer du ma ci mus a bokk samay kilifa ngi nii ci F24 lañ bokk ñoom ñi seen wàllu bopp xam nañ ne que man je suis principe lu ma bëgg wax dama koy wax waaye ci ni mu gën a rafete ci ni mu gën a rafete ñoom ñi xam nañ ko ci kuréel F24 kilifa yi gën a mag ci politique ñu ngi fa sommité yi gën a mag ci politique ñu ngi fa ñoom soxna Aminata Touré ñoom docteur Abdoulaye juuf ñoom euh, euh, ñoom Seydina Alioune Ndiaye mii nii et cetera parce que F24 ñun ñëpp fa yem amul ni kii ancien ministre la amul ni kii ancien président la ba tax na man lu ma leen di wax dama leen koy wax directement sans état d'âme ndaxte dama xam ne que li may wax benn dëggu na ñaareel bi ci yar ak teggin laa koy waxe yar ak teggin boobu nag ci laa bëgg ñaaxaat sénégalais yi ci laa bëgg ñaaxaat woy jur yi bu àdduna metti rek. ñu découragé bu àdduna metti rek ñu bàyyeeku ndaxte saa suñu lajjee jàppal ne que ñàkk nañ diir gudd gudd gudd ci suñu dundin te saa suñu lajjee jàppal ne ëllëg danañ am woy bu ñaaw ndaxte bés bu ñu gisee sunu doom walla ñu ne ah kii de doomu diw la ah kii de baayam de lii la fi nekkee woon loolu du doon woy bu rafet kon nag nañ fexe góorgóorlu ba xam ne que jamono bu mu méttee métti wala politiciens yi féewuloo ñu ba ñu euh, euh, faillir ci sunu mission ndaxte kenn ku nekk ci ñun sàmm la mu am njaboot mu ñàkk am njaboot ndaxte ëllëg sunu borom dana la dana la laaj ana nan nga nekkee woon ci kaw suuf waaw joxoon naa la xel ngir nga mën di xalaat joxoon naa la xel ngir nga mën di moytu joxoon naa la xel ngir nga bañ bañ a def lépp loo xamante ne dama ko tere man mii sa borom kon ana lan moo tax nga defoon lii kon tayeef la mooy ñaan yàlla na yéex waaye bés bu ñu fi jógee sunu borom yàlla ñu àtte ci yërmandeem et non sunuy jëf ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa